Monsieur le l'inspecteur des DARA représentant le ministre de l'Éducation nationale, le président du mouvement Alphala et sa forte délégation, Monsieur le maire de la commune de Djamnabi, Monsieur le maire de la commune de Goudjan, imam représentant du Sable, le représentant des notables, Monsieur le Délégué des quartiers, les imams, Mesdames, Messieurs. L'installation d'une école est l'essence fondamentale de la République. C'est la victoire de l'accès au savoir pour tous, de l'égalité d'échange. L'élément incontournable de la démocratie, c'est dans cette optique que nous avons créé des DARA tout en les formalisant conformément à la vision de l'État. Dans le cadre de la nouvelle politique lancée par l'État du Sénégal, en l'occurrence modernisation des dans le Daraba Ibrahim Kami s'est réussi depuis 2009. Pense des poids que cette nouvelle vision est faite pour lui. Quand nous comprenons la modernisation des Dara comme le renforcement des acquis, la mémorisation du Saint-Coran et la maîtrise des sciences islamiques chez l'enfant, en lui offrant des opportunités d'accès aux autres savoirs scientifiques et comprendre de développer dans les programmes scolaires. Aucune l'éducation formelle Par sur un curriculum harmonisé et pertinent. Ceci dit, que la formation coranique sera renforcée pour un programme français, appelé par l'anglais et l'informatique, essentiellement gouverné par les systèmes de la visioconférence, avec un internet ultra-moderne, là que vous voyez, que vous voyez en face de vous. Et dans le but de la libération des terres modernes, nous avons ouvert cinq dont 400 fonctionnaires. Trois de la région de Kauda, Tegren Séré, Kenyan Séré, Boudaï Séré, et un de la région de Dakar, comme le Jamiagou. plus précisément dans le quartier de Cité Bayas, et un à Touba. Le programme sera subdivisé en trois filières imam scientifique, imam agricole et le business halal. Imam scientifique. Les étudiants qui sortiront de cette filière auront une connaissance solide et approfondie en sciences islamiques. En même temps, avoir des compétences dans le domaine de la science et de la technologie, conformément au programme français en vigueur. Imam agricole, et à l'intérieur du Saint-Coran et avoir la chance d'être ingénieur agronome ou technicien dans le domaine de l'élevage, de la pêche et du bâtiment. C'est ça, c'est ce qui est permis, c'est le contraire de haram. Cette prière a pour mission fondamentale d'orienter la personne en capital hmm. sur le droit chemin dans tous les secteurs de l'économie. Le coût de trois complexes, Kerguelen Séré, Djamnyadjo, Touba, s'élève pour au montant de 2 milliards, dont la première promotion des imams Ouzéga, chercheurs, professeurs, ingénieurs, techniciens et banquiers sortira en 2014 Inch'Allah. monsieur, madame, ce complexe que nous livrons aujourd'hui, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes que je voudrais réussir pour leur compétence et leur professionnalisme. Nous remercions vivement le frère général de Menabaye, Cheikh Ahmed Tijanias et toute la famille de Cheikh Islam et la Nias, particulièrement et la Nias et sa forte délégation. Merci Excellence Tassim El Khadi, conseiller de Qatar, qui a financé les 80% de ce complexe et que nous lui évitons de faire avec nous, car il est désigné comme le parrain principal du travail dans la camp. Nous remercions le mouvement Alpha qui est notre conseiller pédagogique et cesseur de fonds pour la réalisation des projets. Merci Imam Mohamed Sow et toute son équipe pour la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Nous, remercions M. Ernest Cassin pour ses principaux en ciment en fer qui a un esprit espontané. Nous remercions également le cabinet comptable conseil Cambiassou, qui a financé les 20% du projet et qui a la charge de payer les enseignants depuis 2009 jusqu'à présent. Ce cabinet est composé d'une équipe dynamique et patriote, travaillant avec dévouement et personnalisme. Merci à toute la presse, à son ensemble, et particulièrement à Matériel Touba TV, à toutes les personnes physiques ou morales privé ou public qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Mesdames, Messieurs, le Dara d'excellence la Makam apporte sa modeste contribution pour la consolidation de la Ouma islamique. Je vous remercie de m'avoir écouté. mbirum daaw soo xoolee Sénégal am na ay sooxe di daaw lan moo taxoon jóg mooy nag jàng alxuraan xam mu nga toppee yàlla nga jaamu suñu borom subhanahu wa taala bu pare mu tarbiyee la ndaxte dañoo am daara ngay jàng alxuraan bu pare dem di yëlwaan di bees a sëriñ loolu tarbiyee la woon dafa am loolu def dafa am dafa amoon jeexantal jeexantal bi lan la mooy day ñu ci yow mën a yu mel ñoom ne nekk ci situation bu xat loolu da daal moo permettre yow gën situation moom nga moo mën a ci loo ne da nga mën a débrouiller loolu moo nekkoon daal mais léegi lan moo xew si si jamono bi bu nekk yi taxawal loolu su amee il faut ñu taxaw seetaat loolu dama ko waral xam nga loolu saafara ñun daanaka dama dama doon taxaw ci loolu su nga xoolee dafa am ñetti pàcc. première partie mooy parents yi oustaz yi ak état bi par lu tax parents yi dañoo sa doom jur ko mu dem war a dugg école au lieu de dugal moom su la doo sax mais nga jël ko jox ko seen daara ko sa yax kese laa laaj yax laa la laaj doo ko jox dërëm kooku am ci lu mel ni téeméer wala juróom fukk mais naa ñu dumalee dulalee xale yooyu ça pas problème oustaz boobu aussi day taxaw moom léegi day dem day da ko def fond commerce ñu jël xale yi xale xale yi mu jël xale yooyu di leen yelwaan loo di leen loo xaalis au lieu mu ne seen daal mooy def au commerçant. xam ne relation ak mouvement Alfala moo jur liggéey bi xam ne moom la ñu sargal tey bii moom la ñu sargal fii muy ma doomal ta xarit ñu ngi koy ñaanal ak i rakam ak i magam yàlla na ñu war ko tëbu teg ki nga xam naa mooy magistrat dëkk bi du benn yoon laa fi ñoo fekk fi xam naa nu mu toog sama njaboot bi baax leen di sant bu baax bu ma ci jógee dinaa sant suñu sëriñ suñu mbokk man dama naan waa Medina Baye suñu mbokk lañu Cheikh Maye ñu ngi lay nuyu ñu nga dal jàmm ci dëkk bii nga xam ne dañ ko sunu waajur ba bokk mooy Cheikh Ibrahima Niass yal na yàlla tax ci barkeem fi doom mais mu xam am koo xam ne dama koy faral di nuyu exceptionnellement mooy sëñ Modou ba ma ko xamee bu tey lépp loo xam ne xew na ci njaboot bi muy fii dinaa ko fekk muy Kaolack dinaa ko fekk mois de mars fii passé rek ba ne jaay Omar génn yaa dina jëmbu daay kenn jokk ko dama ñëw ñu ne ñoo na ko dem ci bari na loo xam ne bu fa xewee dana def tout pour fekkee ko naam yàllaa koy lim ca mbooloo ba mais mu lu ko ca boole yal na yàlla dëgëral taxawaay et maa ngi sant mbokk yi fi ne ku fi ci nga ci mbokk yi ci nga ci Gorée la Dóobin ku fi sant Mbour ku fi sant Ndour Mbour képp képp koo xam ne rek sant Sénégal yaa ngi yaa ngi biir ñii nga xam ne sant ñoom ay bokk la ñu ngi ci biir ndax dañuy jëflante suñu waajur jëflante suñu mag bu tey jii ñu jëflante ñun bon nag man dama ne bokk gi ak cëriñ gi dafa doon loo xam ne daf ñu boole yàlla ko yàlla yàggal te eh, lii nga xam ne nag moo fi nekk tey dañ ciy bëgg ndax nag yéene lu am solo boo buggee diine ci defoo ca dara jàngaloo ko xam jàngaloo sa doom mu xam boo nee bugg naa diine des na yàlla mën na laa bañ a may wasatu nga jàng mais nga daan te jàngal su ndaw kon kii nga xam ne mooy ku ñu jur maa baayam ak i maram kooku xamoon na diine diine loo xam bañ de xale tuuti këram la waa dëkk ba yëpp doon daje julli fa naafila boobu ñu xale yu tuuti buñ la doon firi alxuraan bi mu mag la di déglu tafsir ba nga xam julli dañ tàkkusaan ñu andi mag ñi politique bu rafet bu ko defoon mag ñoo ñoo xam ne ñu bëgg diine la ñu am ñu xam-xam mais am nañu takkute ak détermination fekkee fu ñuy firi alxuraan bu ko defee ñu meetal leen ay cheikh leen wala ay tafsir kooku mu nekkoon politique boo xam ne wa juróom ñi ak ñeneen instauré nañ ko ba Macky Sall yëpp wax dëgg yàlla taw loo xam ne lu ñu doon def kon. temps mais xam naa ci sëriñ bi mu jëm sori na maa ngi leen di jottali nuyoo famille yépp lépp la nekk Saalum te bopp dëkk yaa séeréer yi ñepp ñu leen di nuyu leen di sant waa de sant sëñ maa yi nga jottali nu suñu nuyu ci xalifa bi famille Niassène yëpp laa bëggoon wax ci turu famille di sant maa leen dëgëral allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. sama sëriñ kontaan nañu bu baax a baax. Sénégal am na pétrole am na gaz am na urus des na parce que Sénégal bi lépp luy barkeel suuf ngir yàlla rek mën naa barkeel Sénégal parce que lépp lu nekk feeñ na fa. alquran nañ fi wàllu yi yaa ngi fi ajjuma yaa ngi fi nit ñaa ngi julli ajjuma xale yëpp a ngi dem ci daara ji. te loolu mooy barkeel suuf bu yàlla te mi ngi Sénégal bon yàlla mën na barkeel Sénégal ah parce que boobu ñu ngi ñaan yàlla suñu dirigeants yi nga xam ne ñoo fi nekk léegi yàlla ko yàlla feeñal ci seen loxo ah yàlla ko yàlla feeñal ci seen loxo ah te itam bu ko feeñalee ci seen loxo yoo xam ne moomuñu ko waaye dañ cee nekk rek mooy nekk jot li nga xam ne ñoo ko moom yàlla yàlla dimbali ndax yàlla yàlla barke Sénégal gërëm Kambel gërëm jotaay bi gërëm nit ñi nga xam ne daje nañ ci yëpp te yàlla rek moo tax ñu daje fi ñu ñu ngërmaaneel foofu ngërmaaneel yàlla ñu yàlla may ko ci barke borom seen ñi fi teew yëpp ah ci barke ñi ñu seel yu baax yi fi teew yëpp yal nañu yàlla doon yi yal nañu yàlla may yal nañu yàlla ndamal ci Sénégal ba duñ fi gis def loo loo xam ne daf ñuy tiital ñu dal ko yàlla yi yal nañu ci yàlla musal yal nañu yàlla musal ci terroriste yi yal nañu yàlla musal ci yàqkat yi yal nañu yàlla musal ci yëpp loo xam ne tey yàqal Sénégal te di ko defaral yëpp yàlla ñu ko yàlla sori yàlla mën ñu ko may yàlla ko yàlla may ci suñu góor ci suñuy jigéen ci suñuy xale ci suñuy mag waaw ah, ndax bu ko ñooñu amee rek góor ñi xale yi góor ñi jigéen ñi ak xale yi bu àndee jàmm rek Sénégal yëpp am jàmm ndax képp koo xam ne da ngay jóg pour yàqee réew ca jigéen ñaa xale yi rek ngay jaar te jigéen ñaa xale da ngay jaar tax yàlla yàlla musal suñu xale yàlla yàlla mos ko suñu jiir bu ñu muccee rek Sénégal dina àgg suñu jëf yàlla yàlla barkeel suñu xale barkeel leen dimbale leen yar leen ñu am xam-xam ñu am dogu ñu am bëgg seen réew ñu am bëgg seen réew xam seen réew yàlla yàlla defal leen loolu ndax lu ci bëri ñàkk xam seen réew rek ñi fooree wax mu lay gënal ngay bàyyi sa réew dem liggéeyi leen tubaab ca Espagne wala ca Italie te lépp koy liggéey yëpp am na ci sa biir réew boo dogoon rek mën nga koo génne boo dogoon rek mën nga koo génne may ah, yaral bi suñu doom bañ xam seen kattanu réew ak ne mën na am bu na am bu ay xare am na ay borom xam-xam borom xam-xamu diine borom xam-xamu tubaab yëpp am nañ fi ah donc li ñu yàlla war a may pour ñu góorgóorlu yàlla may nañu ko dafa des nag ñun fii bopp nag ñu am suñu dogu ak suñu yeewute ak xam li ñu yàlla may luñ koy defee dañ koy liggéey suñu réew wala dañ koy liggéey lii tubaab yi alors foofu la wax ne nekk yàlla yàlla woon li gën a li gën a li gën a dëggu li aw yoon te xiir si xiir ci suñu doom yi xiirti si xale yi xiirti si jigéen yi benn réew gënul Sénégal benn réew gënul Sénégal ah ndax lépp lu ñu baax rek depuis juróom benn téeméeri at ba léegi wala yu yàgg fi xam-xamam fi alxuraan am fi yëppam fi ah te da ngay gis man directeur école la euh, institut la dañuy abal ay professeur yu bàyyi ko Égypte ñëw di fa jàngale am na ñu bëri ba dañoo ñibbi dañuy wax ne bu ñëwutoon Sénégal kon l'islam ci téere rek lañ koy xam ne duñ xam ne ñu koy pratiquer

Waklen amin. Amin. Yan ya Rabbul Amin. Nanggulan yan. Amin ya Rabbul Amin. ya Rabbul Amin.